des fois waaye dina xam ne léppay dëgg. daan ko te mii des fois day tàng waaye. lan eh yéen li nga eh li ma bëgg xam mooy foo jël say bagages. xanaa sama kër ndey sama kër baay. léegi si sëy bi sonn naa tamm naa xàddi naa te gis si sëy bi ndax dangay si am mukk lu la dee. mais waaw su ko defee nga muñoo muñ bay bëgg a dee ngir mën a am lu la neex te maa la gën a sonn ci sëy bi ah ndax maa ngi la woon démb ca ngoram. maa yow la tey si sëy bi. gis nga maa yow si kër gi. maa yow si njaboot. waree gis nga maa yow si biir néeg bi. yow dimbali ma yow kan moo la tàcc ba ngay fecc yow ku la tàcc ba ngay baara loolu laa bëgg a xam. yow maa yow si biir néeg bii munoo fa dara. eh waaw. yow bu dara du doon ah waay waay waay dara du doon dara kon dara da doon dara tey ba jotut. yow loo bëgg a wax si dara. Ah. dama ne la li aw junj doy na borom xel. wax ju ma déggul mënuma koo téye si xel. Kan ah kan mooy dayu caa. ah ne léegi li du daal téye ma guddil la bëccëgal. dimbali ma nag wax jaa ngi bëgg a bëri ndijaay yaa ngi may bëgg a fattaki wax wax ji nag dafa doy billaay ndijaay yow yaa ma lakkal yaa ma sonal ndijaay xam nga laa bëgg nga xam ka da may wax lu leer wala ma gàddu samay bagage dem sama kër ndaay sama kër baay. di nekk ak sama moroom yi jéegi ngay xëy di ñaan dépassé ko kose yow bañ naka ba boobu mi ngay sol xew bu nekk xàmmee nañ ba nga juddoo ba sa ndey sa baay ba léegi moom ngay sol man nag maa sol nag si loolu xam na laa bëgg ngay xëy fajar teel di ma jox dépassé mooy jug dem di dugg di daago ni sa moroom mën na ne wala mënul ne waaye loolu lay mën mën nekkee loolu mooy baaba mal a daxal bu aar na tooga ma dara dem génn la jéegoon rek. waaye mm-hmm. xam nga fi fekk di jéegoon sa xol seet xaar. man sama néeg bi ni mu mel rafetul présentable dara dara dara dara dara te xam nga ni man fu ma toll damay am ay gan. waaw ah, gis nga maas man suba ba may génn kër ga war a daf ne ma su ma indiwul dépense day ñàkk la man moom ñàkk la sax ma gën a a ñibbi nga may ñàkkee te maa lay dugal ci xaalis yi mhm. sama xarit yi ñëpp dañuy ñëw di ma seet si te gis nga man ni ma mel ci dëkk bi kon dafa ma war a changé ba neen lal dugalaat fi ba neen lal xale itam même ma changé leen lal mais loolu problème laa bëgg Dakar maas wara neen tey bu dul dépense bi ñibbi yaa indi juróom semaine u dépense kon baax na ndax man mii ngay gis ni la la wokk moom a turi ah. waaw waaw dimbalal bi dama ko wàcc bëgg naa am na yu ma fa bëgg li yow laa wax kay nga gunge ma gunge ma rek. loolu du benn problème boo bëggee ñu dem léegi léegi. il suffit nga woo bi mu taalal ñu oto bi dem. nañ dem nañ dem bu ñu tollee fee ñu woo ko mu jël si ñu. ñu dem nañ dem. kon yow yow bokk jàngoro. damaa yow war ma du ma yëg cee olal xam naa ne ak lal ba na mu moo su ma yëgut tey la moo tax ma wax la loolu. léegi xam nga nu muy demee. walaay ah. nañ dem nañ dem. grand moo xam maanaam isamtoon yàqante na trop saa tom kaay xoolal ma lii. waa lii lii rafet na de. xoolal bële. xoolal bee pareegul ne. oui moom mooy yow man mi doon dem màkk daje Kaaba ga. fii da toog xaar xaw ma. mais nag yàlla yow it nag waa ma. nanu bàyyi bu meeri ba. Hmm. am na beneen bu gën a jëm. dégg nga moomal lal yi. lan moo man lan yii déglu déglu déglu déet Sénégal li jënti xaalis ndax Mama fi ñu toll nii gis nga li ñuy wax ni moomal lal yi yow daal xolal na wax rek neen waaw moomal lal yi ñu jaay leen ko taf taf ci lu gaaw après nga ñu jox menuisier bi li mu moom ñu jël suñu wàll te dem mas ah déet diw yow xoo xoo Moussa kon baax man manuma dem ba ville de mas loolu wóorut man manuma dem ba ville de loolu mama de am mama lu sotti yi mooma lal yi dégg Mama Lale man man man. ah asalaamaaleykum Mama Lale eh, eh, papa may ma tuuti. Ah, ah day wuy téléphone waaw kay baal ma baal ma baal ma baal ma baal ma baal sama yëf sama yëf maa fi gis yi xeetu lal yu baax waaw waaw Abdou mu ngi nii moom laa àndal sax waaw Abdou am uyu alors grand lal yi fi gis moom kay non tuuti est impeccable lépp lépp lépp amu problème ñu waxaale ñoo far xam naa ne moom bu ñëwee moom ah, doo wax dara. Euh, euh, gis nga boo gisee ma la doon wax sànq ni euh, ndax léegi nit ñi dañuy ñëw fekk modèle jàmbur yi di ko sàcc ndax inspiration dafa metti waaw kay ah, ah, nga baal ma eh, kay ku nekk yee kaay demal waxtaan ak ñii. leen def ah. ah, loolu ma leen doon wax noonu moo ne. lii ngay gis nii xam-xam beek lépp kii ak a mu ngi nii. moo koy defar moo moom lii moo moom atelier bi. moo moo moo moom ndax kii ku baax la man nag adjoint laa xaritam laa. waaye nag li nga koy gis nii xam-xamu neen la wax leen ak moom rek si njëkk ak teraanga xamnaane bu ngeen ko bëggee dina leen ko jaay. man kay ñaari lal laa bëgg yéen ak may dégg man new ma fi di waxaale ndax man namu ma dara prix bi ngeen ma wax ma tëjji sama pochette bi ba tere leen ngeen yebal ma sama lal indil ma ko moom rek moo ma ñor. comme ni ko waxee rek moom moma il suffit ngeen ne ko ñaata lay jar bu fekkee milliard sax da koy fay. ngeen bëggee sek ma jox leen bëggee sek ma jox leen déedéet déedéet ngeen jox rek. kii yi kay nax. yow papa yow kenn ñoom xaaj bay dana yaay benn baar yow eh, uyu ma fii fii ñun duñ say moroom boy bi ci koñ bi la def wax la ba la atelier bi muy ñëw atelier bi muy ñëw di fi day yàq liggéey na dem toog uñ ko mbay uñ ko mbay fii jaa ci yee jaamu je boo demee boo demee tëmbal ma tëmbal sa waay yee damay kii am ngeen fitte ngeen yaram bi neexul bu ko doon eh eh kii yaayoo yaayoo léegi uma dem eh eh xolop bëgg eh du dëgg eh du dëgg la ma sa tey police sa tey yaay police police police def leen defal ndànk maa sa defal ndànk bàyyi moon la bàyyi moon la bàyyi ma wala bàyyi bàyyi bàyyi bàyyi mu rek waa def leen daal ñu réglé ko Moussa waral ma Moussa Dieng damay dégg ba ba bo déglu waa ba tey mën nañ def police mais ci kaw ñu réglé ko Moussa maa xam. dafa xam yàlla yàlla ma tëddee. dafa dama leen di wan dama leen di wan pour ngeen xam ne atelier bi atelier bi kii kam moom ah. sama xarit la. Ah. Ah. waaw nan ko Eson Bolt. yéen seen. Eh,